Aïssatou Diop Fall tey daf ñuy fas yéene waxtaanee actualité. actualité ñu dalal ko Aïssatou Diop Fall borom àllarba tey léegi yaa moom àllarba bi <laughs> ci suba. avec plaisir. Ah, tey nag euh, dafa am lu ñuy waxtaanee loo xamante ni xew-xewu jamono la. muy benn image boo xamante ni altine ba léegi ñi ko doon gis ci réseaux sociaux yi muy lu tiis. Mm-hmm. ay doomu aadama jàpp benn soxna boo xamante ni ay waajur mu neenaan àndut ak sagoom. Mm-hmm. ñu jiiñ ko ne da doon sàcc ba am loo xamante ni def nañ ko ëpp naa wax sax ci tele wala ñuy moo tax sax on a le choix de. ne montrer waaw nii les images duñ ci fulla te duñ waaw pour rek respecter quand li nga xamante ni moom mooy dignité voilà pour dignité am ak yooyu ah, ci loolu sax Aïssatou parce que gis nga ko ant ngay ngay jigéen déjà nekk nit doomu aadama gis ñuy toroxalee nit rawatina jigéen ni ban jàngat nga ci def waaw ah, euh, Chérif déjà euh, dama leen di féliciter mm-hmm. euh, ci choix bi ngeen def bañ a def dans le sensationnel mm-hmm. comme on a vu malheureusement beaucoup de nos confrères le faire ndax dama jàpp tamit ne suñu métier bi journalisme euh, que euh, dëgg-dëgg au delà de la passion sacerdoce la te tamit éducation lañu dañu am rôle d' ñun ñii ñëpp euh, hasard am nu ñun ñëpp man maa seen devancière sisti <laughs> ñu toppante donc gis ngeen première année li ñuy njëkk a jàngal bu ñu jàngalee lan mooy collecté lan mooy information lu ñu koy collecté dañuy jàngal tamit responsabilité bi ñu am en tant que journaliste parce que ñun Euh, on aide à la formation de l'opinion publique mm-hmm. Mm-hmm. donc euh, ko responsabilité mënu ko gën a rëy mm-hmm. donc man li ma njëkk a déplorer euh, avant ñu ñëw dans le fond mooy tendance bi journaliste et puis je mets vraiment des guillemets mm. parce que man am na ñoo xam ne man rus naa leen woowee ay confrères wala ay consoeurs ndax aujourd'hui Euh, kenn xàmmeetul kan mooy journaliste ak ku nekkul journaliste euh, kenn xàmmeetul kan mooy animateur ku nekkul animateur kenn xam alors que euh, frontière bi dañuy wax ne la frontière elle est mais elle existe elle existe c'est pas puristes yi xam nañu daal xam nga te pour man métier bi dafa nekk benn métier boo xam ne métier bu noble la te actuellement au Sénégal il faut le dire pour le déplorer ñu ngi koy yàq te yàq journalisme euh, yàq métier information. Mhm. mooy yàq jikko. ndax yàq jikko mooy lan bii nag mooy c'est ligne mooy énième exemple bi mhm. mais bii euh, malheureusement c'est la goutte d'eau a fait déborder le vase mhm. man personnellement euh, Fatou tamit ñun seetaanuñu man man seetaanuma honnêtement seetaanuma affaire bi photo bi photo bi sax mënu mënu ma laa wax ndaw si cette malheureuse là mënu ma la wax ne kanam gi la mel wala nii la mel ndax mm. kersawu naa ci xool ko te ni ma amee kersa xool ko gis nga léegi Moussa Tine mi ngi naan am euh, vous félicite donc defe naa képp koo xam ne euh, tu es doté d'un minimum de de de de conscience et de raison di nga rus xool lool wax léegi vas-y Fatou dooguma la sax Aïssatou peut-être foofu rek lañu bëggoon rebondir gis nañu euh, palmarès su xale bu jigéen bi elle a fait de brillantes études dogal dal ko même si dogal c'est juste pour reprendre quelqu'un mu ne on lui a tout volé sauf son yoon. seen identité seen lu mu am rek. wallaahi ko ba mu des ba xàmmee ko da koy loo xam mais la nga léegi dañ nekk ci air lu tax man ma ragal ay affaire internet ak intik ak yooyu mhm. euh, chaque jour euh, damay ñaan yàlla yàlla ma yàlla suturaal ba bu ma waxanteeg sama noonu wala bu ma jëfanteeg sama noonu ba mu weer ma parce que fii ku ne mën nañu weer ku ne ah. personne n'est à l'abri personne n'est à xoolal nga ñëw parce que euh, ñee li ñu def les les les les auteurs là xale yooyu noo noo ñooñu def ko jigéen ki garaawe na nu ne waaye ki gën a li gën a garaaw mooy ko taxaw filmer tas ko site internet yeeg journaux yëpp ngawti ngawte gu jël ko tas ko mm-hmm. xoolal li nga wax faate et c'est très important mm-hmm. euh, cette dame la Euh, euh, nga xam ne dafa nekk si ay jalti jat xoolal mu nee nañu papaam dégg nga papaam démb mm-hmm. moo seen caatu kër bokk ci famille bu baax bi ne fa ñu la dégg na laaj wax ñu ay fa yax yu rëy ak yooyu mm-hmm. mais famille bu baax dans le sens yar éducation euh, ay sërëm du au cadre moom ci boppam au cadre la mu nekk loo xam ne ku nekk mais ku nekk danga di nga amee zone de traversé dans ta ngay jigéen war a suba nga war a am doom war a am nangam elle n'a que vingt-neuf ans xale bu tuuti ñu saccagé ko comme ça saccagé du imagine kii bu demee ba xelam dellu siwaat mu war a toogaat du xool boppam internet kan moo ko teg ay euh, parce que fii euh, Cheikh il faut le dire ñun affaire de buzz ut buzz wër mm-hmm. buzz mooy defloo nit loo nit lu ne je pense comme ay sot ni nga ko waxee jamono ji dañoo dem ba nekk ci période boo xamee ni mënatu dañuy mënatuñu identifier réseaux sociaux ak journalisme ak journalisme. c'est le bon système léegi nekk euh, dans. ay métier du journalisme ñoom di fekki ñiy traiter information ci réseaux sociaux yi ni ñu je pense que loolu c'est que tu tires le métier vers le bas. mais complètement actuellement dafa dañ nekk benn nivellement par le bas bu grave benn médiocrité bu grave boo xam ne daara indi ko lu dul euh, recherche de buzz de clic ay vues la ñuy wër. ay vues te vues yi c'est à notre détriment nous les femmes. Mm-hmm. c'est-à-dire il faut que, que tu mettes avant mu mu nekk euh, ndaw si. il faut que tu que tu que, que, que tu mettes tous tes atouts euh, ci biti. Mm-hmm. jël la ne la la tey. ci écran da ngay xool euh, donc yooyu c' est xam nga dafa nekk loo xam ne. pour man mooy Cheikh li nga doon wax léegi rek. Euh, euh, et c' est dommage qu' ay ay ay yëf yu mel ne ay seen Senpix ay def naa ko red ñu ngi wax ko de la presse bi ñu ngi wax si ñu ngi wax cela ñu am tamit ay man man pour man au delà de parce que man yooyu yëpp dëgg la c' est important nangam mais dama jàpp ne. ñun on a nos pères am nañu ñoo xam ne ay kilifa lañu ci journaliste ñooñu jàngal. suñu ay nawle lañu ay nawle lañu pour il est important que euh, bu fekkente ne ñii soi-disant parce que un journaliste pure et dure dafa naa woo koo xam ne formé à bonne école waxuma nag euh, xasuma ñi ñi dem di fay pour jàng mais wax dëgg yàlla fay pour jàng ñu jox la diplôme bokkul ak def concours une fois dem jaar fee si sibee nu mu mettee nga toog ñu jàngal la lan mooy information ak lu sa obligation en tant que journaliste lu sa responsabilité ñun ñëpp bëgg a buzz ñun ñëpp bëgg a def scoop ñun ñëpp bëgg a nekk à la une mais am na loo xam ne di nga di nga rus nga ko wax média nekk léegi ay match de football suy am ni audience day rëy xam nga souvent da ngay gis ay ñoo xam ne dañuy euh, simmeeku dugg ci biir terrain beeg yooyu. mais hmm. c'est systématique. duñ ko wone hmm. mais xoolal même même aux États-Unis xoolal xoolal par exemple euh, euh, Fatou aux États-Unis seen cérémonie yu mag yooyu. Hmm. mais boo fa ñëwee sol fa sax yow fii fii xoolal nekkal Beyoncé. nekkal naa nga ñëw sol rek sol loo xam ne nii sa sa yaram baa ngi ci biti dañ lay censuré nga wax lu gros mot ñun la tit tit tit mm-hmm. mais fii de donc après de tu vois euh, euh, ñooñu mooy li ma wax rek ne journaliste yooyu euh, kuréel yooyu mm-hmm. dañoo war a ut nag noo xam ne ndax ku xamul buur dee na ñu nu buur buur def na neneen mm-hmm. noo xam ne sunu doom yi ñu ngi ñuy seetaan sunu sunu njaboot gi ñu ngi ñuy seetaan suba nga nga massacré vie wu nit moo xam ci ci audio visuel moo xam audio du yooyu yëpp euh, euh, manière la boo xam ne dañuy da ngay toroxal doomu aadama te malheureusement euh, da ngay taxaw ñu ne journaliste yi ñoo ko def te yàlla xam na ni ñi def loolu amuñu ñooñu ñooñu c'est des commer c'est des commerçants de l'image et des commerçants euh, euh, de de de l'actualité donc euh, li mu bëgg wax pour le mooy pour man. je sais que am nañu Awa Ndiaye loolu mu dirige commission xaw ma lan. données personnelles données personnelles jël nañu dossier bi en main. waaw ñu mais au delà de ça kuréelu ñi nga xam ne ñoo ëmb journaliste yi ñoo mm-hmm. war a quand même am responsabilité. responsabilité mm-hmm. mën a sanctionner mm-hmm. tout site internet bu teg image wala audio jaam boo xam da sàcc moo xam parce que conversation privée nga sàcc ko nit waxtaan ak nit parce que fi ñu ma nga xam kenn man maa ngi <laughs> oh. ay doomu aadama la ñu ni si peut ni nga ko waxee euh, da ko seq donc waxtaan bi su dénnee ba ci mbedd bi rek war nañ xoolaat suñu bopp mais beneen affaire euh, ay setu yaa ngi koy wax waa données personnelles mm-hmm. muy kuréel goo xam ne aussi ñi ciy liggéey que tamit jàppoo ni euh, euh, responsabilité nguur gi war naa gën a mën a dëgër ci fenn fi ndax ki ñu jël lépp. ba bàyyi ko identité am tey day wér mais image ku nekk xam na ne euh, Google monde la loo fa dugal doo ko fa génnee noonu. boo tappewaatee turam ëllëg nga ko fa fekkaat di fa fekkaat affaire yooyu est ce que tamit ñun fii Fatou li nga wax c'est tellement important regarde ñun ku ne xam na ne ñun dañuy jéem a cloner. tubaab yeeg ñooñu mais malheureusement ñu duñu duñu cloner seen yu baax yi. Mm. ñun mimétisme la ñuy def. Mm. Euh, mais xoolal yu mel nii mais doo gis euh, tubaab bi kenn xalaatu ko te pourtant bu ñu buzz ñoo ñooñu gën a xam parce que buzz moo sa buzz rek su ñoom la jógee mais y a des yoo xam ne ñoom seen ils se l'interdisent c'est que ils ont un mhm. boo xam ne euh, kooku bu weesoo yow sa sa sa sa sa responsabilité individuelle mhm. sa conscience bi nga xam ne moo la may moo la la moo la mën a xam ak éducation bi nga xam ak li ngay jomb xam nga jomb jomb mhm. dafa baax si doomu aadama jomb jomb nga ni man ruus naa def lii mar naa duma tax naan petit lool bu dee amoo ko ne dafa war am ku taxaw sa wet koo xam ne mm-hmm. daf lay imposer mm-hmm. nga xam ne da nga nekk ci société mm-hmm. bokk ak ay doomu aadama du ñu ay mala quand même du ñu ay mala on est doté de raison mënuñu fi nekk juste parce que benn cent franc benn weccet benn kii bu ñàkk fay la boo amee xaw ma naa ngi mu vue youtube fay la ngay noo xaaral ma jël jigéen teg ko génneel ay ay awraam euh, toroxal jigéen ko. mais mais mais kooku parce que comme ni nga wax rek. malheureusement on a un un état euh, wax naa sànq dama dama bëgg a wàññi tuuti. mais malheureusement ma euh, Macky Sall jàppale ma ci ma wàññi euh, xeer yi parce que koo xam ne président Macky Sall doo ko dégg mukk ci loo xam ne dafa dafa ñor askan wi doo ko ci dégg jamais. doo ko ci dégg mukk euh, ministre bu ñu dénk bu ñu dénk euh, la femme mais kenn dénk ko rek euh, l'aspect politique la volet politique kenn dénk ko ko yu mel nii dañ ko si war a dégg mm-hmm. parce que bu ñu joxee un ministère aussi fort que la femme la femme parce que la femme c'est la famille au sens large bu la joxee lu noonu yow ngay jigéen tey jii man ni ma ni affaire nu ma naqare naqari faati mm. naqari ko mu saati naqari ko yéen parce que yéen ay ay ay da ngeen jur jigéen jigéen jur leen mm. jigéen nekk seen seen seen seen rakk wala seen mag mm. kon moom mi nga xam ne moom la ñu dénk ministère de la femme muy jigéen encore kooku ba mu président Macky Sall bi nekkee làqatu fee di nalaw nalawam boobu nga xam ne kenn xamul kañ lay yeewu mais moom moo ko a yee jigéen ñi mais xam nga man féministe boobu non non non pourtant def nañ ci liggéey bu am solo bu bu bi avancé ça association des juristes sénégalaises mm-hmm. ak tamit euh, Jamra ñoom Mame Matar ak euh, ñi nga xamante ne ay kuréel yoo xamante ne yëngu ci ba dernier développement yi mooy ñi ko def jàpp euh, jëppal pour ñu daal di mener enquête bi loolu day indi rek naan justice populaire maanaam fajal yoon boo xamante ne nguur gee war a fajal képp koo xam tooñ la am na foo war a jaar ngir ñu régler ko naka lan mën a def ngir lii dakk yaa ngi doon wax ku mel ni Bamba Kassé également ñaawlu na ko ci page Facebook am pointé du doigt également responsabilité Amnesty International moom it na ci ñi dugal vidéo bi xëy na foofu am na imprudence bu ci am parce que jël précaution yi pour nit ñi quand même li nga xamante mooy identité soxna si naka lan def ba justice Euh, euh, Chérif euh, actuellement justice populaire boobu dëgg-dëgg Euh, xëy na moo mooy li dal ndaw si mooy li dal euh, waa te yëpp lu ñu war déplorer mais xam nga bu ñu nekkee mooy li ma wax rek lépp rek dafa delluwaat ñun responsabilité suñu responsabilité ñun médias yi mm-hmm. ndaxte gis nga même euh, bu ëma seen bi man même xam nga nag maman dégeen chimère mm-hmm. yàlla na ko yàlla yërëm te taas ñu si barkeem ñun ñëpp moo ñu yar ci man noonu laay doxee bëtu gar bi nopp gar bi yàlla mi ma tiim xam ne man du suñu waa kër ñi ma xam ñu ngi man du seetaan du ma sa déglu nécrologie man ragal nee naa ñeme naa song gaynde mais damaa ragal feebar damaa ragal lu ñaaw du ma déglu sa nécrologie diw dee na sax après par par la suite laa koy yëg vidéo yu salte yooyu du ko xool mais imagine toi xoolal yow euh, xale bu góor bi kiiw ëma seen juste populaire bi ngay wax xale bu góor boobu ni ko def il paraît que dañu wane ces derniers instants mais imagine sa famille nga taal taal taal image xool kooku quelle triste fin quelle fin ah xoolal euh, femme bi donc loolu yëpp pourquoi parce que euh, ñun

mais les mêmes obligations ne il faut au moins qu'il y ait un journaliste mhm. boo xam ne euh, sorti euh, ci école bu nit ñi xam nit ñi ràññee ci ni muy formé euh, journaliste ñu imposé la ne la comme ñun rek nu ñu la koy waxee ne la boobu pour nga pour nga créer groupe de presse wala dara mm-hmm. il faut que quand même nga am koo xam ne cahier de charge boo xam ne am na ku ci ne ku mën a xam yëf yi mm-hmm. bu weesoo loolu nag ñu mën a ñu ñu ñu ne la lii ak lii boo ko génnelee d'abord état bi dina sanctionner dina sanctionner site bu ko diffuser sanctionner diffuse euh, euh, ki ki capté ko comment dire ki capturer image yi mm-hmm. ak ki ko diffuse le diffuseur ki capté yooyu bu amoon mooy amoon état boo xam ne constitué bu responsable boo xam ne euh, dina bàyyi politique politicienne am état boo xam ne nguur goo xam ne un état fort responsable boo xam ne dina sàmm suñu jikko yi ndax euh, euh, sàmm jikko weesuwul lu dul protéger citoyens yi hmm. protéger citoyens citoyens yi mooy protéger seen vie privée protéger seen intimité parce que même les les criminels ont une intimité ah, pour pourquoi yow bu ñu la jàppee nga da nga nit sax boo demee tribunal dañuy déglu ba pare sax mais tu es présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. mais pourquoi fii ñuy salfaañu loolu yëpp. parce que ñun su responsable dafa engagé. Mm-hmm. Euh, euh, yooyu yëpp nag Fati. Mm-hmm. Euh, moo tax ma ni il est temps Sénégal fii ne nee naa gis nga corona bi yàgg naa wax ne gis nga corona bi mm-hmm. yàlla sunu borom bi wàcceelu ko si àddina bi. pour vraiment monnaie de change non non du ay fo du ay caaxaan. lii ku ci amul ku mu yeewul. ci yow sa nekkin ci àddina mm-hmm. sa nekkin ak sa nawle dara dootu la yee ci àddina mm-hmm. parce que yëf la boo xam ne sëgam tubaab yi mi ngi fa fii malheureusement léegi gis nga Sénégal mm-hmm. les gens euh, presque dafa mel ne fii amatul kenn kenn déglootu sax bi moo tax seen bulletin yooyu korona yooyu kenn déglootu ko donc c'est parce que nit ñi seen xel dematul ci yàlla corona bii nag euh, dafa corona ji dafa dafa dafa dafa dafa ñu war a yee bu ñu yeewulee dara dootu ñu yee te euh, Sall président Macky Sall Euh, dafa am responsabilité devant l'histoire euh, euh, c'est le père de la nation père de la nation ne bu ñu la ko waxee du ay fo du ay caaxaan neewuñu la rek te defee dina law lijjantil ay politique mais xoolu jikko yi dóoral nit commission bu ñoom Awa Ndiaye bu fekkoon ne jox nañ ko doole bu war mm-hmm. kenn waxatu ko bu fekkoon ne journalistes yi dooleel nañ leen ba nga xam ne ñoom mën nañu segg seen biir ku ko nekk ak ku ko nekkul mm-hmm. bu fekkoon ne police aussi jox nañ ko doole procureur ñu jox ko doole mu bañ a nekk procureur boo xam ne ni politique moo ko tax a jóg liggéey waaw non non procureur bi la yàlla xam doy na <laughs> dëgg yàlla procureur boo xam ne nii euh, procureur nguur la euh, moom tam bu kenn nalawee moom mu xarang xam nga kon kon on est pas ba noppi foofu may daanelee laata ñuy dem ci invité bi Aïssatou mooy vidéo bi mu ngi continuer ba léegi di circuler waaw man mais mais mais fàtte loolu moo ma gën a métti kon hmm. vidéo bi mi ngi continuer di circuler ba léegi. loolu aussi euh, man man man exemple Fatou dafa laa des fois dafay am yu may métti sama xol ba nga xam ne. Mhm. Euh, dama naan honnêtement euh, dans quel monde sommes-nous. Mhm. dans quel monde sommes-nous. Mhm. yow loolu nit ñaa ngi gi di nalaw ah, nu ñu que ñoom nag bëgg a bloqué dañ koy bloqué amee. mais loolu même ku ñu bëgg a jàpp te. ku ñu a dañ lay jàpp des fois am na kàddu yoo xam ne da nga koy yëkkati. parce que am na mais jëli la mais c'est na division cybercriminalité bu police. gendarmerie kenn dooleel leen ba ba ma la waxee rek xam nga gis nga euh, dëkk bi li fi na sax dafa bëri. Mm-hmm. li fi na sax dafa bëri. Mm-hmm. te te loolu yëpp nag euh, kenn na ko honnêtement lu dul euh, kenn nalaw fële Mermoz lay nalawee xaw ma <laughs> Rum lay nalawee c'est parce que moom il est temps mu yeewu euh, euh, président Macky Sall mi ndax fii ne nekkul politicien rek police yóbbu nangam mm. non mais suñu jikko yi suba daf daf koy layoo ak ñun ah. mm. suñu jikko yi mu bàyyi nii ñu xesal faa ñi n'importe qui se lève tu fais n'importe quoi après fii c'est c'est la loi de l'impunité non non c'est grave ah. ak kilifa diine yi ak kilifa diine yi aussi famille non famille moom famille bañ démissionné yàgg na mm-hmm. ndax famille démissionné nañu depuis longtemps mm-hmm. parce que koom-koom bi mooy loolu loolu mhm. da ngay gis dëkk boo kër goo xam ne amoo loo lekk amoo loo naan mhm. benn xale bu jigéen xale yu tuuti mooy ay affaire rangu yooyu lan moo ko indi mhm. xale bu tuuti boo xam ne mi ngi ñëw def n'importe quoi ay sit yaayam di gis mbokkam di gis papaam di gis maamam di gis kenn waxul dara mu osé taxaw di affronté ñëpp parce que tout simplement mais elle fait bouillir la marmite de l'autre côté euh, donc euh, kon yi bañ démissionné yàgg na mais kilifa diine aussi ku faalul sa papa faalewoo sa yaay mais amaana mën nga faale benn benn sëriñ boo xam ne nii boo waxee nga déglu ko kon donc cas yu mel nii bu fekkonte ne kilifa di ndax fi président Macky Sall xëy na ñun faalewuñu mais am na ay a marabutique yoo xam ne bu ñu ko nee caskal allo muy tekk déglu leen ñooñu buñ buñ jógoon yedd ñu parce que kenn ustaas yi kenn déglootu leen ustaas yi di wax ci rajo yeeg yooyu naa ñoom ñëpp ay bës <laughs> ñu moo tax moo tax kenn kenn déglootu leen mais kilifa diine bu ñu jógee nga bëgg ñu yi laa wax bu ñu jógoon jël seen temps wax yedd indiwaat nit ñi si jikko yi mm-hmm. faati mën a changer dina changer tout euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci sa contribution ni nga koy defee àllarba ju def mbégte am euh, di jàkkaarloo ak yow wax dëgg fa yàlla euh, ci waxtaan ak jàngat bi léegi léegi dañuy